si téeméer ak juróom-ñeent fukk test yu ñu def fukk ak benn ñoo ñëw nekk positif bond ak ñoom ñoo am jàngoro yi muy fukki cas yoo xamante ne cas contact la doon suivre si suñuy service ak benn kaa boo xamante ne transmission communautaire ñu yëgal leen tam ne tey juróom-ñaari patient déclaré nañ leen ne wér nañu tey dañ leen génn hôpital ci bés bi ñu leen wax tam ne patient yi nekk ci hôpital ñu leen di faj ñu ngi yëg tan bu baax bu ñu xaymaa ba mu démarré ba léegi ñaar téeméer ak juróom-ñeent benn cas la ñu déclaré fii ci senegal ci ñaar téeméer ak benn yooyu téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett ñoo si wër ñaar ñoo si génn àdduna kenn ñu évacué ko bon dëng mën nañ jàppane ne téeméer ak fukki patient ñu ngi si suñu hôpitaux yi ñu leen di faj ministère de la santé de l'action sociale mi ngi demandé population yi ñu respecté bu baax ndigal yi ñu leen di jox pour que ñu mën a xeex Covid 19 bi mu génn réew mi maa ngi leen di remercier bu baax.